dëgmala journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy avocat yi Ousmane Sonko ñoom nag li ñu ko conseillé maanaam mu ñëw wuy ji ba tey ci journal bi nee na Ousmane li nga xam ne sàkk na ko maanaam ñu bàyyi ko librement muy dem ak dikka li bañ maanaam ñu daal di koy tënk Ousmane Sonko nee na tënk bi nga xam ne moom la ñu koy faral di tënk ak di ko bloqué ak seen ñoom loole la bëgg ñu daal di koy teg ci suufa bëgg na tamit moom njiitul Pastef maanaam atte boo ne bu tëddee njaaxaanaay boo xam ne bu leer la ñu dem tànn ay xam ne maanaam duñu parparloo te dañuy tëddee njaaxaanaay yéen xibaar naan ñu ana ñi waxoon ne Ousmane Sonko daw na ak Ousmane Sonko dafa làqatu bërki démoo njaay gis nañu ko mu daal di génn ca diwaanu Ziguinchor mbooloo mu bari daal di koy topp yéen kay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu gisoon ngeen ab délégation bu Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre jiite maanaam ñu dem fekk Macky Sall toppale ba journal bi nee na li ko waral nag mooy état bu Sénégal ñoom nag dañoo jëloon ay dogal maanaam bëgg a jàpp Ousmane Sonko maanaam ak fu mu mën di nekk maanaam ñu jàpp ko ndi ko loolee la état bu Sénégal bëggoon a def Touba xam na nag bu ko état bi defee mën naa jur njombe ci réew mi Touba yónnee ab délégation journal bi nee na ak vidéo bi nga xam ne moom ngeen di gis ñuy wax ne li nga xam ne mooy xutba bu korité la ñu indiloon Macky Sall loolee ab prétexte la waaye wax ji dëgg xalif général des Mourides moo wax ak Macky Sall ngir nag mu daal di apaiser mbir mi ngir nag jafe-jafe bañ a am ci mi journal bi nee mortal combat bi naroon a am ci mi loolee la Touba fexe ba génn ca yéene kaay gi di ñu xëy fekk fa Matar Sène mi nga bi nga ne Serigne ak Macky Sall moom Matar Sène daan nay wax ne li ko waral bokk na ci kilifa diine yee xam nañ ne Sénégal jamono ji maanaam ci guddi gu bët séddégul ci la nekk te bu ñu xefee Sénégal mën naa dugg ci kaw moom Matar Sène ci biir journal bi nee na wii nga xam ne xalif général de mu ni doxalee na ko loolee alerte la bu jëm ci Macky Sall wala te nag li nga xam ne moo am ci mbir mi mooy wax nañu Macky la na ko julli dëgg maanaam du wax ba pare di ci génn te dafa a ba a cohérent ci ay waxam yéen a kaay gi di critique nee na Touba yedd nañu Macky Sall journal bi di Vox ne mun Mountakha Mbacké Bassirou ab message bu ñu codé moom la yónnee Macky Sall message boobee nag Macky moo ko war a décortiquer yéen kay gi di Rewmi Quotidien sa diwaanu Sigi Coro nee na njàng mi ak njàngale mi dañu ko daal di lu toll ci benn semaine vacances forcées noonu la ko journal bi bindee yéen kay gi de Le Quotidien yor yora na ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi jamono ji nag ñoom engagé wu nañu nga xam ne moom la ñu dëgmale te nag am na loon ne loo xam ne mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu lëkk duñu seetaan ñuy faagaagal Ousmane Sonko yéen kaay gii de Le Quotidien nee na kuréel gii di ñoom nag nee nañu li ñuy sàkku mooy manifestation yi ñi ci ñàkk seen bakkan ñu daal ci ubbi ab boo xam ne bu leer lay doona waa F24 ñoom nag ànduñu benn yoon ci faagaagal gi nga xam ne gars yi bëgg nañu ko faagaagal Ousmane Sonko ba pare ñoom ñoo ngi sàkko Antoine Diome ministre de l'intérieur mu daal di tekk ndombal tànkam waaye tamit ñoo ngi sàkko ci ministre bi ñu dénk wàllum yoon bëgg-bëggam mooy jël combat bi internationalisé ko ndax nag nee na jamono ji maanaam lu toll si junni ci courrier yoo xam ne jot na ko maanaam ay preuve yoo xam ne dañuy wane ni ne yi ñoo ngi dal ci kaw askan wi ngir mu jël mbir ñu xibaar naan ñu jàpp gi nga xam ne ñoo ngi koy jàpp farandoy Ousmane Sonko yi ba léegi mbir mi jeexagul la ndax ki ñuy wax Bada Ndiaye te mu bokk ci Pastef Touba démbu teg nañu ko loxo transféré nañ ko Dakar waa dik ñoo ko teg loxo Faali Sané moom tim ca diwaanu Kër Massara teg nañu ko loxo ndax dañoo njort cocktail molotov dóor ko ci dépôt bus Dakar dem dikk ca Kër Massara bi nee na ñi nga xam ne ñooy takk der yi koy jàpp ci aw xew la ko fekk maanaam doomam moo doon ngénte invité ya bëri na ci ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na bërki démboo Njaay manifestation yi nga xam ne moo amoon ci mbir mi am na ci kenn koo xam ne moo ci faatu woon ca Kër Mbay Fall tudd Pape Amadou Keita journal bi nee na bi nag li nga xam ne wane na ko weddi na li nga xam ne moom la Antoine Diome wax maanaam autopsie bi li mu wane ak li Antoine wax ne moo ko rey comme yàlla ak yàlla yéene kaay gi di na wax ji nañu ko wax mu leer Pape Amadou Keita ci Kër Masara autopsie bi dafa wane ne bal la ñu ko dóor mu daal di ñàkk bakkanam certificat genre de mort bi weddi na bu baax a baax ministre de l'intérieur Antoine Diome réew mi ko di cee ñu koy fekk fa Aminata Touré moom muy wax ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi ndax ñëpp xam nañu ne Aminata Touré jamono ji kombaam bi nga xam ne moom la gën a jàpp ñaari loxo mooy fexe ba Macky Sall du sampandëndama moom Mimi Touré ci biir journal bi nee na bëri na ci biir Benno Bokk Yaakaar ñoo xam ne ànduñu ci troisième candidature Macky Sall te nag Macky Sall xeex boobu soo moytuwulee dana ci wéet moom mi mi ñu fekk ko ci yéenekaay gi de Le Quotidien nee na bëri na ay ministre Macky Sall yoo xam ne yàggatul dara danañu ko wan ginnaaw yéenekaay gi de La Tribune nee na élection présidentielle 2024 Barack Obama wax na ci Barack Obama mi fi nekkoon ay jamono njiitu réew mi Amérique maanaam jamono ji ma ngi wax ak Macky Sall ngir nag mu bàyyi lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ñetteelu candidature yéenekaay gi nee na administration bu Joe Biden ñoom nag jamono ji ñoo ngi xel ñaara ci ñetteelu troisième candidature ci Sénégal yan musiba la mën a am ci réew mi li am ba tey ci biir journal bi de La Tribune nee na ñi nga xam ne ñu yoo Washington Washington ñoom tim ñoo ngi am ay crainte ci tension politique bi nga xam ne moo am ci Sénégal yéen kaay gi de Libération xëy dañu xibaar naan ñu musiba am na ci centre de santé bu Vélingara foofee benn élève bu tudd Mame Diarra Diouf moo fa ñàkk bakkanam ndax coupure courant yoo xam ne moo amoon ca centre de santé bu Vélingara ndax Mame Diarra Diouf moomee dafa nekkoon sous oxygène maanaam dañu ko takkaloon appareil boo xam ne salay noyyee yéen kaay gi nee na coupure courant yi loolee moo tax mu génn àdduna ñàkk bakkanam yéen kaay gi di sunu làmb xëy wax a